jërë ngeen jëf courant ba kalaate na ci diggante Touba ak Senelec la tribune nañu bu Touba ubbi leen yéenekaay bi ba Senelec di lim ñi ko ameel bor ci réew mi dana commune Touba mosquée ca la mi président communauté rurale bu Touba xëy na leeral mbir mi ci la tribune ak na mu demee benn moo di nee na ñaari milliards ak lu teg loolee Senelec naan waa Touba daf ko ko war a fay ci facture impayé Abdoulahat Ka nañu loolee lu ci ëpp hôpital yi la ak dispensaires yi te ministère de la santé moo war fay li ci ëpp beneen bi ci topp moo di Senelec lu ko commune yore rek yorel na leen lu ñu toll bàllu ko ëpp du ko wax ba noppi nag li mu yàkkamti moom Senelec moo di di wër di jéebaane commune yi Cheikh Ndiaye bëkk néegub xalifa général Mouride yi Serigne Cheikh Sidil Mokhtar Mbacké ñu xalifa bi nga xam ne mu di Jumaay Touba di margob armée de Touba di Daaray Kaamil di Kër Makboum ak université ba courant bi lépp ci ndoddam la gàlle amulul Senelec facture bu ñëw fay nañu ko Cheikh Ndiaye ne waa tribune facture juróom-ñeenti ko fay Mbacké yu fay mi représentant xalifa général Mouride ci biir diwaanu Ndakaaru ne ci Touba amee lu ko Senelec kii lépp mooy ki amul waaye du Touba mi nga xam ne ci atum 2012 bi inondation yi sëkkatale askan wi nguur gi soxla ci ndimbal xalifa bi di Serigne Cheikh Sidil Mokhtar Mbacké benn milliard la yëkkati jox ko nguur gi ngir jàppale ko ko kon bu ñuy wër bor Serigne Mbacké yu fay ne waa l'Observateur nañu ko wëri feneen fudul ca Touba lew na ñaseen ma ngay campagneal Macky Sall grand place ñu xalifa bi ci boppam moo ko wax mu di El Hadj Ibrahima Niass Anta Sarr Diacko mi yore ak ni mu ko baaxoo mu di wër ci këri diine yi di leen jox njàppandalu nguur gi ci gi yéen a kaay bi dañu ba mu yeggee ca law na ña seen xalifa bi xamale ne boo demee neel président Macky Sall tàmbale naa koo campagnal ndax président nit la ku fonk juróomi mbir yi ma ko tawatoon doon ko sàkku ci moom juróom yëpp fajal na ma ko soxna Anta Sarr jàkko a fa demoon sax ci turu président de la république grand place nañu Bamba Massa waale na ca ndax waaleew na ña ñaanal nañu ko direct fa nañu waa Medina Baye moom li ñu bëgg nee nañu moo bu ñu sanoon ci gàmmu ren dóoroo cib xeex noo ne lañ koy xaaree ca Cotonou ga ca Bénin ñaar fukki fan benn ci weeru décembre li am yéenekaay bi nañu moo di doxinu UEMOA dafa gàll góose ba tax Hadjibou Soumaré ak Maoïs Diouf dañoo bloqué kàkk la ñu def li ne kàkk li ne ràpp raw na ko laa si ne kay nañu école polytechnique ba ca Thiès tëj na ràpp li ko waral journal bi nañu moo ci école boobee administration ba ak élève ingénieurs yi dañoo mel ne ay tëx yuy waxtaan kenn déggul boo xam ne ba grève conseil pédagogique bu école ba nee na ñu tëj école ba ñi ñu tëjoon ci réew mi di leen tere ñu génn ci réew mi libération nee ñu bàyyi nañu leen mu di Ousmane Ngom Samuel Sarr ak ma di Niang dañu leen doon tere ñu génn ci réewum Sénégal nee nañu toog fii dogal boobee journal bi nee ñu teggi nañu ko léegi piccamam boppam garab gu ko neex lay tàkk ma tàkk ci direct info mi xëy ci l'homme des bii di Cheikh Amar borom TSE mi gontoon dimb ci forum Dakar yéenekaay bi na ma nga woon ca foire ba doon fa wonee jumtukaay ci wàllu mbay ci teewaayu premier bu Sénégal Mahammed Boun Abdallah Dionne Seck di Pape Abdoulaye Seck ministre agriculture Aminata Mbengue Ndiaye mi amee élevage ak kii di Youssou lakk ga amoon foofee ca foirum mu di pavillon vert bi ba jeex tàkk yéen kaay bi nañu a baax moom Cheikh Amar journal bi nañu moo di ci mbirum tracteur ndax ci atum 2014 jàpp 2015 ministre agriculture ne ñu ci xët mu njëkk journal bi bu ñu amaatoon keneen ku mel ne Cheikh Amar ci réewum Sénégal kon autosuffisance ñaari gi ñuy wax romb nañu ko bu yàgg bu ñu romb enquête yéen coalition bi Arabie Saoudite taxawal ngir ñu xeex wàllu terrorisme Sénégal mam ca boole soldaaram yi mu war a yóbbu yéen kay bi dañu am nay ñaaxoo ñaaxoo yu nañu ci ci ba tax lu ko neex lay def ci ñoom ñun sunu làmb ñu xooli làmb ji ak tournoi VIP gi ñuy wàcc réew mi yéen kay bi samp blaaj mu di tournoi boobee ana kan la amal njariñ bombardier journal bi nañu moom la tournoi mois bi gën a doon risque ci moom kii di Gris Bordeaux ne mën na caa joggi ba jot leneen Balla ci ëpp lu mu gàñe nag sunu làmb nañu moo di Yaxya Jóob Yékini promoteur bi ko bëgg a tëgg di Aziz Ndiaye xëy ñu leeral ne ñoom mbër yooyee juróom fukki millions yi ñu wax ak ñoom mën nañoo am lu ko ëpp ne bu ñu amee sponsor yu joxe genn wàll milliard bu boobaa mbër mu nekk danañ la compal dara tegal la ko ci sab kase ñu dem ci la témoigner fekk leen fa ñoom promoteurs yi journal bi nañu kiris bi nga xam ne am na ak sponsor yu mag ji moo waral promoteurs yi sonn lool booloo nañu ñoom ñëpp ngir fay daay gi waaye li am ba des témoigné nañu moo di ñoom promoteurs yi dem nañu ardon